alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala majmaci shuunihi wa xaqiqati kunhi sirrihi sayyidina muhammadin bahjatil kawni wa diyaihi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 muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di dellusiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu miraas tey nekk ci suñu juróom-benneeli jotaay. bëgg rekk mu leer ci suñ bopp yi bëgg timit mu leer ci boppu ñiñ koy jox ndax kat yàqu goo gis mu yàqu ci ak àndoo boo toppee tànk ya rekk ñaar a koy yàq mooy cëral ku warutoon a am cër ak xañ ku waroon a am cër ki war a am suñ ko xeñee jàmm mënta xamati ki war ta xam buñ ko cëralee jàmm dootu xamati moo tax nag ma ci insister bañ ñii cëral ku yàlla cëralut mbaa ñi koy cëralee ci lu ko yàlla cëralee hut waaye bañ tamit rekk ñi xeeñ ku yàlla cëral mbaa ñi koy xeeñ ca la ko yàlla cëral ndax yi bu xasee am kenn mënut koo rek réglé ci kaw àdduna bi te nag mbooleem histoire boo gis mu xam ci àdduna rek ay bakkan ca tuuru boo toppee tànk ya yëpp quatre pour cent ya ci xalal dong la sababoo ci xalal daal lay soqee ko mbaa mu sababoo ci xalal wala mu nekk luy dellu ci xalal rek xeex yëg yëpp. bombarde yeeg nit ñay dee ak agression beeg yëpp xalal rekk kon ñaareel koo bëgg a xeeñ xalal xalalam jile mu xeeñ la sa bakkan bile moo tax léeg-léeg sax nga gis nit ki xalal ju tekkiwu dara mu taxaw na sama bakkan bi laa ci teg léeg-léeg nga gis ko ci tele bi ñu takk morso yu xonq ya ne suñ place bi ku ñu ko bëgg a xeeñ ñu jaay la suñ bakkan bi ma ne ah, seen bakkan bi yomb na di li ngeen bëgg a teg seen bakkan bi de te ngeen teg ci seen xel mi bu ngeen ci tegee seen xel mi da ngeen ci mën a génn waaye bu ngeen ci tegee seen bakkan bi ba ñàkk ko la ngeen xamoon sax xamatu leen ko te la ngeen xamoon ak néew ñu ngeen fi bàyyi ñoo koy jël kon nag xalal dafa doy waar moom ak bakkan ay séex lañu léegi-léeg xalal dem dabi bakkan ba sowe ko léegi-léeg tamit bakkan dabi xalal ba des ca ñaata nga fi fekk ñu war seen xalal nit bëgg koo nangu ñi ngi défendre seen xalal ja ba seen bakkan des ca léeg-léeg tamit nga gis bakkan boo xam ne mënoon naa root xalal ñëw soowe ko kon xalal ak bakkan ay séex lañu léegi léeg kenn ku nekk mën naa soowe sa moroom moo tax yàlla di ji bàyyiloo xel ci xalal yi bu leen koo fooyee seen dund gi ci xalal la xaju nit ki mënta dund sans alal sa yére yi ngay sol xalal la koy jënd sa lekk gi xalal la koy def boo ko lekkul fooy taxawee di julli ndox mi ngay sangoo alal la courant bi ngay utiliser alal la sareet beeg jakarta beeg oto beeg lépp alal la koy jënd li muy consommer ci essence la ci xaaju lépp alal la kon wala tuutu sufa amwaalakum allazi ja'ala lakum qiyaaman yàlla nee na bu leen jox ñu dese ñi xalal ñu koy foyee ndax seen ak dund ci xalal la xaju ci la ci la taxawee de safiihu nag buñ ko waxee ci fuqaaw yi mooy kuy yàq xalal ci lu neex yàlla waaye lii jéggi na dayoo ci yàq xam ngeen ne ngénte neex na yàlla waaye ngénte rek nag. nga yàq ci xalal yoo xam ne ñi xam xel ñëpp xam nañ ne li jaru ko woon céet neex na yàlla mais nga yàq ci xalal du jéggi dayoo ak faju neex na yàlla mais nga faju feere ci loo xam ne tamit faj jaru ko woon mënoon ngaa am fu gën a yomb dëkk waruwaay dëgg dëgg tamit xalal maanaam eh, farata la neex na yàlla mais nga tabaxee ko noo xam ne tamit mënoon ngaa tabax lu gën a yem dundu ca. waruwaay neex na yàlla mais nga jënd ca fere ca loo xam ne oto bi mënoon ngaa jënd yu ko gën a yomb te mu baax te du tere fu nga bëgg a dem nga dem fa yooya kon yàq sa alal ci lu neex yàlla la nit ku koy def moom ci sufaawu yi kon nag yàq sa moom ci lu neexul yàlla ku ko def dof nga bu tuddee sax ku dese waaye yow dof piir nga waaye nag koo gis mu yàq rek yàgg yàgg dana torox ndax kenn mënta liggéeyal yàq. loo liggéey liggéey mën a liggéey ba mel ni mbaam mën a yàq ba mel ni golo torox ba mel ni xaj rek kenn mënu ci dara ñett yi rek duñ teqali ko léeg nga gis ñu mën a liggéey lool ba mel ni mbaam duñ noppalu mukk bu dégg bëccëg ña ngay kër kër yi waaye ndey saanam dañoo mën a yàq ba mel ni golo su boobaa dañuy mujj torox rek ba mel ni bawkat bi walla yàlla nattu la yow nga nekk mën a liggéey ba mel ni mbaam yàlla nattu la njaboot ay doom ay jarbaat ay mbokk alal ji yaatu nga xajal leen ci ñi la ci jàppale ñi mën a yàq ba mel ni golo moom may yàq dana torox toroxaleel la kon faw di vérifier bu baax a baax alal ki ko liggéey da koy fonk da koy toppatoo. ki ko liggéeyul nag moom mën na koo fooyee moo tax kon dee ci bàyyi sa xeel te alal day miin nit ni juri kër yi di miinee nit di lay alal di miinee nit yow mu jël alal ji commencé ci ambulant xen waay bagage di jaay laxasoo rido ya xenu saag ya dama dem ba ci kanam li nga xam ci marchandise xàtt na toog ko nga jël ay jakarta teg ko ca teg ca kanam teg ca gannaaw teg ca côté ya fuñ la arrêté nga taxaw jaay dem ba ci kanam yoro bi at na tut ko nga jël oto topp marché àjjuma yi benn nga moom ko mbaa nga teg ko ci oto ya topp lu may rek buñ ne talaata nga ne fële àllarba fële topp ku ko place ya dem ba ci kanam arrangé tut la nga wut place mujj soppeeku magasin mu gi ngay dem ngay dem ngay dem Dubaay wala ngay yóbbante ngay dem ba ci kanam ngay bokkante conteneur. dem ba ci kanam nga commencé wàccee ay conteneur alal ji miin na la nii mu miinee la fi nga jaarak moom a tax waat naa ci yàlla boo ci xawee wàccee sa tànk rek xam ñoo ko teg ci seen loxo rek mu yàqu ndax ñooñu miinut leen. mi ngi mel ni xar mi nekk ci sa kër gi ak béy wi foo ko rombee jox ko ndox jox ko dugub walla wallaay boo ñëw mu topp la donte ab xaj la waaye ki nga xam ne gan la buy ñëw bees rek xaj bi baw ko minute ko xalal noonu la mel xam na ñoo xam ne comme liggéeyaloo ko boo duggee ci xalal ji rek xaj maanaam xalal ji baw la baw nag ñaar lay jur benn yow ma ñuy baw dem walla kalay baw dem mooy benn xalal ji dem baa nga dem bàyyi ko fi rek kon yooyu yëpp yéen njaati géey di leen ci bàyyi xel di leen contrôler surga yi de leen bàyyi xel ci seen liggéey yi jamono jii li mën a yàq dafa bëri crédit yi gaaw na lool ci mën a yàq te doo ko yëg bët bu seen nga jënd crédit 1000 francs di jokkoo rek wax ju dul jeex connexion bi gaaw na ci dee foo toll yaa ngi connex yaa ngi connecté te li ma ci gën a jaaxal ñi am connexion yëpp ñoom ci seen bopp amatuñ connexion koo ci nuyu du la fay koo ci wax ak du la du la tontu bés di xool rek bés di xool rek su ko defee loolu temps ba muy jël ci yow. ku la ko remboursé woon nga nekk milliardaire xalal jang cay def tamit ku la ko remboursé woon nga nekk milliardaire mais tamit danay bàyyi dana bàyyi effet ci sa bët yi écran bi ngay xool guddeeg bëccëg di bës di xool wallahi boo demee ba xam ñeent fukki at juróom fukki at da nga xam ne bët dugut fu ñuy jaayee kenn du ko fooye kon yooyu yëpp ay xeete la ñun ñi koy wax ñoo ko gën a soxla yàlla ñu nattu rek mu jaar ci suñ làmmeñ wi ñu jublu ci jëriñu jublu ci tamit jariñ ci ñi nga xam ne ñoo koy déglu jamono ji dafa yàqu-yàqu goo xam ne foo jël nit teg ko fa place su xeboo sa bët di tege ca moom jamono ji sax yàllaa ngi dimbalee ay caméra yoo xam ne tey mën nañ koo monter ca place ba nga koy xool ci sa téléphone bi ku dugg nga gis ko ku génn nga gis ko lu nit jaay nga xam ko lu mu fu ko encaissé yi fum ko denc nga xam ko yëpp caméra bi moo la koy wax su boobaa tamit yooyu yëpp jar naa bàyyi xel ndax nit ñu ci bëri àndatuñu ak seen xel yi tëñëx tëñëxi yi rek ba xëy daanu bu ko defee léeg nga mere nit fekk nga mere sax du nit kaadaram nit rek la waaye jikko ja newu fa euh, ko su ko defee nag kon faw ngay vérifier tubaab yi boo gisee yàlla dimbale leen lu ci nit am alal kiloot lay sol teel a xëy. moo fay njëkk moo fay mujj ci entreprise ba ñun nag danga nga fiy toog ñaari million ngay xam rek commencé tiitaru jënd oto boo xam ne mënoo mënoo xam essence am jënd oto boo xam ne moom foo koy gaaree di tiitaru ñi lay ñi lay gémmañu gémmañ goo xam ne newut ci yow du sotti yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel soo bëggee dem daal boo mënee fukk jëral juróom-ñeent yëpp nga denc ko jël fukk ba rek fukkeel ba def ko. mbaa nga denc ci juróom-ñeent fukk yaag euh, juróom-ñeent yaag juréno genn wàll def fukkeel ba su boobaa yàlla mën na laa dimbale te jamono ji koo jël di ko liggéey loolu nit ñi dañu coow rek liggéey xamut liggéey xamut quatre vingt pour cent koo ki jox liggéey mu foyee ko mënoo ca dara foo ko jël mu foyee ko moo tax sax dama doon xalaat ne man de jamono jii pour réew mi avancer yaakaar naa ne dañoo war a embaucher ndoor ñaar. koo embauché jox ko ne ko yaa war a liggéey nga embauché waat keneen kuy taxaw ci kanamam ne ko del liggéey ba ci yàgg sax ma ne doxut mën naa am ñoom ñaar ñu nekk fa di waxtaan mbaa ñu nekk ca Facebook yaag nekk ca maanaam WhatsApp baag internet ba mbaa ñu nekk fa tabaarakallaahu teg seen ataaya ja ba tudd ñoom ñaar ñëpp nga ñàkk pert nga pert leen te bu weer dee nga fay leen ñoom ñaar ñëpp kon daal jamono ji foofu la toll del maanaam foo embauché te liggéey. xel dana yegg ci ne ndax mënuñoo embauché ku koy liggéeyloo waaye boo ko embauché ñoom ñaar ñoom ñaar far kenn du liggéeyati dañu mel ni ñaar ña bokkoon tool ba tabaarakallaahu yàlla ji taw xiin lool taw ñax ma bari ñoom ñaar a bokk tool bi kenn ka dem ca morom ma ndax nanguwut a xëy si mu dem ne ko ah yow tamit mbokk mi xanaa gisoo ñax mi xanaa gisoo xiin wi. xanaa gisoo nangam di ko yedd di ko yedd ba jant bi so ñoom ñaar ñëpp fay faruñ faruñ liggéey yi far foofu la àdduna bi toll ji jamono foo fekk groupe ña toog rek dajee rek di wax rek joo xam ne amul benn njariñ ah, su ko defee kon nag jamono ji baaxu dafa yàqu dafa doy waar yàqu gi yëpp nag dugg ci jamono ji nit ñi rek la nit ñi xamatul jikko di mbubboo loo xam ne du nangu duñ nangu mu sol leen dara di mbubboo lislaam rek duñ nangu lislaam sol leen di mbubboo ay kilifa tuñ nangu kilifa ya sol leen di mbubboo loo xam ne gëmoo ca dara lu yàqu rek lii moo ko yàq ndax koo jëflanteeg ci mbir sa xol tàng wallahi diine jaa manqué waaye ku xam diine ku jëflanteeg sa xol sedd kon loolu ay xeete la di ay tën bii gannaaw tën bii yooyu yëpp nag maa ngi dugg ak yow ci darsu bi darsu bi nag tey mooy xiir mooy alxujbu xujubu luxatan mooy almanu wal xirmaanu mooy xeñ la ak maanaam tere la istilaaha nag mooy xirmaanu shaxsin bil kulliyati min al miraasi aw taxdiidi faridatihi li wujudi shaxsin aaxara noonu la ko fiqul islaamiya waxee fiqul islaam wa adilatuhu boo demee da ko ci fekk noonu la ko taarife mu ne daal kiir muy alxuj bu li mu tekk ci istilaax mooy xeñ ak jëmm ji mu xeñ waajay waroon a donnu lépp ngir lim fi ne waroon naa doonu waaye lim daje moom a tax mënta ti du xam dara muy maanaam kiiraay ak rotal wala kay munu koo teree doonu dee waaye man na koo teree am lu bari mu jëlee ko ca kaw bànqaasab garab ga wàccee ko ba ci suuf day am wala nga ne daal da koo jëlee ca euh, ascenseur bi fekk waa jàng ca ñaar fukkeeli étage mu wàccee ko ca ñaar fukkeel ba ba indi ko ci juróomeeli étage ba ne ko dootoo yéegati fii nga mën a yem yow sa ascenseur bi fii la mën a yem mënta yéeg sa escalier yi fii la mën a yem kooku mooy ñaareel bi kon ñaar la ki lay tere na yow yéegoo ci suuf doo yéeg ascenseur bi taxoo koo jug escalier bi taxoo koo jug. ndax xamoo soxla ca kaw dara nëxalul la fa nëxaloo fa dara tamit kon bul yéeg kii ne ah am na lu ma fa neexal mi ngi ci kaw dama koy jëli benn ma jël escalier mbaa ma jël ascenseur bi mu ne bë bëtal rek bësal bouton 5 fa nga mën a xem étage bi 20 la waaye yow cinquième nga mën a xem doo ko passé kon ñaari kiiraay yi la rek ñoo xam kiiraay ak rotal ak kiiraay ak toxal ba mu jeex ci miiras doo ko fekk lu dul loolu ñooñu nag nga xam ne dañ lay dañ lay xiir xiiru xeeñ la toxal la nela la xaajoowut nga yéeg ci escalier bi li ci kaw ñi ci kaw ko tax a jug yow ca kaw dara neexalu la fa wala euh, ñooña laa lay limal ñooña boo leen calculer nga xam ne dañ lay rotal laaw doo am dara juróom lañu juróom ñile buñ dajee xeeg juróom yile jëruñ ñi xéeg su ko defee juróom ñii ñoo leen ni xeeñ du ñu am dara ka ca njëkk mooy ku ñuy tuddee sët bu góor bu bàyyi ko ci doom ju góor sët bu góor boobu la muy am am doole balaa am doole na fekk mu ñàkk dajeeg doom waaw waaw doom kay bu kasee am benn sët bu góor dootul donati doom ju góor bu xasee am doonte kenn la bu yeboo sëdee jurne tus duñ ko xamati jeexal nañ càkk bu ñu xeboo wuti daabaaya walla ñu jël seen mañ yaag rato ya fu ngeen jëm ñu ne ci yàlla yéen a xam naka noonu sët bile bu dajeeg sët sëtaat bi sët sëtaat ba doo am dara maa ko gën a jege ndax ku la gën a jege moo la gën a yell kon daal dama bëgg a wax ne doom bu fi nekkee benn sët dootul donu sët bi bu fi nee soqee ko ci doom ju góor nekk di góor benn sët sëtaat dootul donati kon loola leer na ñaareel bi tamit bàyyi bu fi xasee nekk maam dàqu na am maam ji nga xam ne kay ci la bàyyi soqee ko bàyyi la gën a jege doom ji nag ndax kay bala ngaa ne bala ngaa ne maam ne baay ngay wax baay ba pare doo mën a wax maam comme kay nag wax dëgg yàlla bàyyee fi ne maam dootul donati ndax moom kii moo ko gën a jege néew bi naka noonu mbokk ci wàllu ndey ak baay li muy foor foor bu doom xasee am menn mbokk dootul donati mbokk mu góor mu ba mbokk mu jigéen loo dee bàyyi mu ne doom ju góor comme xam nga doom ju góor di kenn menn mbokk du doonati da dàqu na mbokk ci wàllu ndey dàqu mbokk mbokk ci wàllu maanaam ndey ak baay ak yooyu yëpp maanaam euh, dàqu nañu doom jee tax waaye waaye ki ki soqeekoo ci néew bi kay moo gën a jege ki nga xam ne mook néew bi ñoo bokk ko waaye mbokk moom fa bokk néew bi ko waaye doom nag moom fa soqeekoo ci néew bi naka noonu tamit. Euh, mbokk balaa mën a donu na fekk doomi doom ñàkk fee nekk muy sët sët bu fi nexee mbaa sët sëtaat nekk fi mbokk dootu donati ah naka noonu tamit baay bu fi xasee nekkati euh, maam dootu donati dafay dàqu kon ñii dañuy rotal ñile doom jile rotal na sët ya sët bi la na sët sëtaat ya baay jile rotal na maam ja waaye tamit doom jile wala doomi doom jile rotal na mbokk ya naka noonu baay jile rotal na maam ja ak lum kawe kawe naka noon tamit mbokk ci wàllu baay loo bokk ak néew bi nga ne ñoo bokk baay ah ñu ne la toppal file doo dara doom a tax doom jee tax doom ji doom ju góor ji mu xam moo tax dara wala ak kay amul doom ju góor waaye xam na doomi doom ju góor wala doomi doomaat doom ju góor lu mu sori sori yow mbokk mi bokk ak moom baay doo doonu dara demeet euh, baay ji bu xasee am noonu tamit euh, comme doom xam na euh, demeet maanaam ma mënoo tere baay doonu baay dafa foor doom mënta de mënta ta xëñ baay waxoon naa la ko waaye baay ji bu xasee am mbokk ya ñooy daqu bu doo bu baay amee rek mbokk dootu doonati loo bokk néew bi nga ne ñoo bokk baay ñu ne la baay a ngi nag. bàyyi mi ngeen bokk ngi nii kon yow koy loo fi defati du doo doo am dara kon loolu leer na maam ji noonu lum kawe kawe noonu tamit mbokk ci wàllu ndey ak baay ak mbokk ci wàllu nday ak baay ñoom ñile buñ dajee kii di góor kii di jigéen dañuy doon ci xasable kii day xasable càmmeñam ja da koy xasable càmmeñ gi day xasable maanaam jigéenam ba moo tax kon tamit ñun ñëpp kenn dootul jon kenn dootul doonati kon nag al aqu min abin mahjubun bil ibni ibnul ibni tamit noona wa in nasala wa bil abi wal jaddi wa in ala wal aqu shaqiq wal uqtu shaqiqa ida saarat asabatan maal xayri naka noonu tamit mbokk ci wàllu ndey moom nag moom ña koy xiir dafa bëri mbokk ci wàllu ndey balaa doonu ak ak a jafe balaa doonu na fekk doom bu mu xam doomi doom bu mu xam moo xam doom ja góor la du donu bu doom ju góor xamee mbokk ci wàll ndey du donu sët bu góor boo xamee mbokk ci wàll ndey du donu doom ju jigéen boo xamee mbokk ci wàll ndey du donu sët bu jigéen bu bàyyi ko ci doom ju góor maanaam boo xamee mbokk ci wàll ndey doonu lu mu suuf lu mu wàcc wàcc bàyyi boo xamee mbokk ci wàll ndey doonu ba tey maam boo xamee mbokk ci wàll ndey doon mbokk ci wàll ndey daal juróom-benn koy juróom-benn ñoo koy xiir bu ñu la waxee miraas ma ñu ne lu mu nga ne mbokk ci wàllu ndey ak bàyyi ak doom ne leen mbokk ci wàllu ndey ma dootul xamat ci euh, moom xiiru na ñaari yoon bàyyi xiir na ko euh, doom tamit xiir na ko kon daal doom ju góor doom ju jigéen sët bu góor sët bu jigéen bàyyi maam juróom benn ñile ñooy don ñooy ñooy ñooy xiir mbokk ci wàllu ndey ndey saanam tabaarakallaahu sëñ Moussa njaay ma nekkoon mbos yal na yàlla yokk leeram ku man xalil ñi dàq xalil ci réew mi moo leen ko jàngal noonu la ko daan waxee mu ne doom ju góor doom ju jigéen sët bu góor sët bu jigéen maam baay juróom-benn ku ci am mbokk ci wàllu ndey dootu doonati kon moom sëñ Moussa Ndiaye yal na yàlla yokk leeram mbos la nekkoon man xalil lool man ca ñépp moo ko jàngal ñi dàq tey xalil ci réew mi ku tudd xalil sa xel daj sëñ Makhtar Diagne. moom mooma ma ngi ko jàngee ca sëñ Moussa Ndiaye ku tudd xalil sa xel daj sëñ Aliou Sakho ma ngi ko jàngee ca sëriñ Moussa Ndiaye moomu dëkkoon mbos tabaarakalaaw di borom xam-xam bu amutoon morom génn na àdduna yàlla yàlla yokk leeram kon nag ñooñu ñooy ñooy ñooy xiir kon daal ñi nga xam ne ñooy xiir ba xeeñ la Ah, ñenn ña di xirinte gi ña moromam ya ñooñu daal foo ko fekk asabaat yi la mooy rek ña ma la waxoon ne ca gaño ga la ñuy bokk ca wàllu doomoo ga dana xiir wàllu baayoo ga bu doom xasee am kay maanaam dana xiiruhu ca wàllu baayoo ga ah, kii dafa soqeekoo ci néew bi kii soqeekoo ca ka soqeekoo ci néew bi mënu ñoo ànd day doonu kon jihatul bunuwati taxjubu jihatul ubuwati naka noonu tamit wàllu baayoo ga danañu xiir ca wàllu mbokkoo ga wàllu mbokkoo ga danañu xiir tabaarakallaahu ca wàllu mbokkoo ga ca waaw ca maanaam wàllu mbokkoo ga ca wàllu ndey ak baay danañu xiir ña mbokkoo ca wàllu baay rek naka noonu tamit wàllu mbokkoo ga ca wàllu baay rek danañu xiir ña bokkoo ca wàllu baay tëx ga kon daal ci gàttal ku la gën a jege néew bi dafa lay xiir néew bi néew bi nag kenn gënu koo jege doomam néew bi kenn gënu ko jege baayam moo tax néew bi kenn gënu koo jëkk jëkkër ji mbaa jabar ji ñeenti ñii la kenn mënta xiir mënoo ca dara mënoo fee xiir ba xiir yaay bu xamutoon néew bi du xam mënoo fee xiir ba xiir bu baay xamutoon kii du du fi xam ba muy bay xam luñ koy donu mënoo fee xiir ba xiir doom mënoo fee xiir ba xiir jabar mënoo fee xiir ba xiir jëkkër yooya kon mooy ñu mënta xiir ñi si des ñëpp xiirante mën a ca xam kon wax naa la ko xiirante ga ca wàllu doomoo ga bu dajeeg sët ya ga ca wàllu baay ja bu dajeeg mbokk ya xiirante ga ca wàllu euh, mbokk ga ca diggante ndey ak baay bu dajee ca wàllu baay ga rek xiirante ga ca diggante mbokk ya buñ dajee xeeg doomi mbokk ya demeet noonu nga koy demee ba mu jeex ci wàllu xiir ga ñi nga xam ne tamit dañuy xiir ñi nga xam ci wàllu jigéen ñi tabaarakallaahu xiir ak rotal leen ñoom laa lay wax si nile ah, doomi mbokk mu góor bintul ibni nit kee dee bàyyi fi sët bu jigéen bu bàyyi ko ki doom ju góor ak lan ñu ne bàyyi na fi tamit doom ju doom ju góor ay doom ju góor jëkkee ba mu xasee am rek ah, sët bi dootul donati naka noonu tamit ñaari doomi jigéen yu nit ki am mu soqee ko ci ndiggam muy bintay ni sul maanaam sulbi maanaam bintay ni sulbi yëtay ni aw ak sara ah, ñooña timit tabaarakallaahu bu ñu xasee am sët dootu donati kon daal sët bu jigéen bu bàyyi ko ci doom ju góor ñaara ko mën a hiir lu ko mën a hiir mooy doom ju góor ak ñaari doom yu jigéen bu ñaari doom yu jigéen xasee am sët bu jigéen dootul donati bu benn doom bu góor xasee am sët bu jigéen dootul donati kon noonu lay mën a demee waaye tey nag su fekkoon ne ala kulli xaal dafa dee rek bàyyi benn doom bu jigéen ak benn sët bu jigéen bu bàyyi ko ci doom ju góor da koy toxal li gën a bari jëb ko ci li gën a tuuti waaye du ko mën a xiir fa koy toxalee ca nisif yóbbu ko ca sudus waaye buñ xasee mat ñaar rekk ñee dañuy mujj yiiru naka noonu tamit maam mi nga xam ne mooy yaayi baay dafay yiiru ci yaay bu xasee am yaay bu xasee am rekk yaay baay dootul donnati yaay bu xasee am yaay baay dootul donnati aa baay bu xasee am maam dootu tonti waaye nag maam ja soqee ko ca wàllam la mën a xiir waaye yaay moom boo am rek dafay xiir maam yépp kon maam tamit mi nga xam ne mooy yaay yaay dana xiiru bu yaay amee bu yaay amee kay yaay yaay dootu donati ak bépp maam su ko defee tamit mbokk ci wàllu ndey ak baay mi nga xam ne mooy jigéen dana xiiruwu bu doom xasee am wala doomi doom am moom dootul amati wala baay am wala maam am ñeent ñile wala juróom ñile ku ci xas am al uxtu shaqiqa dootul donati doom am na mbaa doomi doom am mbaa baay am mbaa maam am mbokk amatul yoon muy al uxtu shaqiqa dootul doonu naka noonu tamit mbokk ci wàllu baay baay rek ngeen bokk mu jigéen boo amee doom mbaa nga xam doomi doom mbaa nga xam baay mbaa nga xam maam mi jur sa baay lum kawe kawe bu xasee am rek ñoom tamit mbokk ci wàllu baay dootul donati naka noonu tamit mbokk ci wàllu ndey baay di góor ak mbokk ci wàllu maanaam euh, tabaarakallaahu euh, mbokk ci wàllu baay ci wàllu maanaam ndey bàyyi muy jigéen ñoom tamit wax dëgg yàlla dootuñ mën a dootuñ mën dootuñ mën a doonanteeti su fekkee ne néew bii dafa bàyyi tabaarakallaahu euh, dafa dafa dafa bàyyi ay doom wala mu bàyyi ay doomi doom su boobaa wala mu bàyyi bàyyi mbokk ya kenn dootu ca mën a doonati mu ngoog kon xiirante gaa ngoog ak li ci xaju mbokk ci wàllu ndey waxoon naa la ko dana xiiru ci doom dana xiiriwu ci doomi doom moo xam ju góor la mbaa ju jigéen dana xiiriwu ci sët bu jigéen bu bàyyi ko ci doom ju góor dana xiiriwu tamit ci bàyyi dana xiiriwu tamit ci maam naka noonu nag ki nga xam ne moo goreel jaam bi doon donnu ci xasab ga xam ne sabab ya moo ko waral waaye waaye jaam bi kay boo xamee doom ju koy donu ka ko goreel doon doo xam dara boo xamee ku mbokk mu koy doonu koo xam ne kuy jeexal alal te waxoon naa la ko ñooñu ñëpp bu ci xamee kuy jeexal alal ci ak mbokkoo ci ak maanaam doomoo ci ak baayoo ci ak baay baay taxoo yu mel noona ka ko goreel dootul ci dara kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy ñiy xiir ci jigéen ñi ñi ñi xiir ci jigéen ñi àngoog ñi nga xam ne tamit nag kenn mënul leen a xiir bu xeeboon néew bi bari lu mën a xam moo xam juróom-benn lañ kenn mënu leen a xiir far force ñu donn kooku mooy doomi ndigg nit ki kay mënoo xiir sa doom nag sa doom ku ko mën a xiir doom ju góor kenn mënu koo xiir doom ju jigéen kenn mënu koo xiir muy ñaar baay kenn mënu koo xiir yaay kenn mënu koo xiir jëkkër kenn mënu koo xiir jabar tamit kenn mënu koo xiir juróom benn yile lu meew métti métti métti faw kuy doon ngay doon ànd ak ñoom rek waaye kenn mënu leen tere doon toxalu nag la gën a bari jëm ci la gën tuuti mën naa am waaye ñàkk doonu doon moom mënta nekk mukk ci juróom-benn ñi ku dul juróom-benn ñi le xam na ñoo xam ne boo dajeeg ñoom doo xam dara xam na ñoo xam ne boo dajeeg ñoom dangay ngay toxalu jëm ci li gën a tuuti waaye nag da am waaye ñii nag moom kenn mënu leen tere doonu lu métti métti ñi nga xam ne dañ leen di nag ñu toxaloo ca la gën a bëri jëm ca la gën a tuuti juróom-benn lañ. ci boromi cër yi ñoom laa lay waxal ñooñu mooy jëkkër jëkkër mile xam nga ne cëram bu doomu xamut mooy nisif waaye bu doom xamee kon fay toxalu bàyyi ko ca nisif jëm ca rubo naka noonu tamit jabar dañ koy xiir toxal ko moom mu ngi nii bu doom xamut rubo la bu doomu xamee fay toxalu jëm ca sumun naka noonu yaay bu doom xamut xam nga ne mbokk ya limu huñ sulus la waaye bu doom xamee mbaa mbokk ya limu ma ngay jëm ca sudus naka noonu doomi doom mile bu dajeek dajeeg mbokk bu da bu dajeeg maanaam doomi doom bu dajeek doom mooy bintul bintul ibni dajeeg maanaam bintul sul bi a kon tamit dafa koy toxal jëlee ko ca nisif yóbbu ko ca sudus waaw waaw su ko defee tamit al uxtu ashaqiqa bu dajeeg al uxtu lil abi uxtu lil abi mile fay toxalu bàyyeeg koo ca nisif jëm ca sudus wa tanqulul bintu binta bnin ila sudusin misla shaqiqati fi uxtin fala tamila kon nag miraas maa ngoog ak xiirante gi ci xiir ak xeñ nga wax naa la ko ñi nga xam ne ñoo xam sañ-sañu di xiiree ci ak xeje waxoon naa la ko muy doom waxoon naa la ko muy bàyyi waxoon naa la ko muy euh, mbokk ci wàllu ndey ak baay wala ñooñ ñëw fa ay mbokk ci wàllu baay wala maam demeet ak nga ñuy yiir wax naa la ko ñooñu ay góor lañ nga ñuy yiir ca wàllu jigéen ña wax naa la ko bintul ibni bu fi dajee ak ibnu wala mu dajee fekk maanaam bintay nii sulbiya tey nii Ah, kon nag bintul ibni day toxalu comme moom tabaarakallaahu bu fi neexee moom kenn rek ak ñile waaye tamit naka noonu ah, maam bi mi nga xam ne mooy yaay yaay baay a ah, bu yaay xasee am rek moom tamit dafay toxalu demeet kon tamit waxoon naa la ko yaay yaay tamit dana toxalu bu yaay xasee am yaay dafa am doole day day day day xeeñ maam yi uxtu shaqiqa li muy am xam doole bu doom xasee xam baa doomi doom xam wala bàyyi xam wala maam xam lum kawe kawe moom perte na moom uxtu shaqiqa uxtu lil abbi li muy xam xam doole bu fi doom nexee wala doomi doom ne fi wala wala bàyyi wala mbokk wala wala bàyyi wala maam moom tamit dafay mujj perte demeet kon miiras maa ngóog ak li ci xaju waxoon naa la kook ñi nga xam ne kenn mënu leen a xiir muy doom ju góor doom ju jigéen bàyyi ak yaay jëkkër ak jabar ñi le kenn mënut a fexe ba duñ donu dara nga ca mënut mënoo fexe ba duñ donu dara nga ca mënut kon nag la ca des rek damay ñëw ak yow nag ci li ma la dëxaloon tabaarakallaahu muy lu ñu tuddee ala awlu su ma ca bàyyeekoo ñëw ak yow ci arraddu su ko defee tamit nag danaa ñëw ak yow sax ba ci euh, miraasu zawil arham yi danaa ñëw ak yow tamit ci miraasu xunsal muskil mooy nguunu ngaana gu lënt nguunu ngaana bala lënt nag lu jafe la balaa lënt mooy koo xamee na nii xam na awraay góor xam awraay jigéen ah ñu ne kon ko sawloo mu tuur ndox ñaari place yëpp di tuur ndox ñu ne ay kon kay lënt na ñu ne kon nañ seet fan moo cay njëkk génne ñu xool ko ñaar yëpp génnee ndoor ñu ne kon lënt na ñu ne kon nañ peese tuur ndox ma bu ca xëpp ñu xool bañ ko peese lay génn ca kanam ga ak gannaaw ga maanaam bu góor ga ak bu jigéen nga xem kepp lënt na fekk njëkk loolu lépp sax na sikkiñ boole ko sax ay ween lii bu dajee ci moom la ñu tuddee xunfa muskil mooy nguunu ngaan a gullant koo xam ne mënoo wax ne góor la mënoo wax ne tamit jigéen la bu doon fam doon sawee fekk ko ne palaasu awraab góor bi mooy tuur ndox kon fan dañu jàpp ne góor la su fekkee ne palaasu jigéen bi mooy tuur ndox kon dañuy wax ne jigéen su fekkoon ne ñoom ñaar ñëppay tuur ndox waaye bu góor bee njëkk a génn kon ñu ne góor la su fekkoon ne ñoom ñaar ñëppay génn ndoor waaye bu góor bi mbaa bu jigéen bi ba ca ëpp la ñi ñi ñi jooyal ko ca booba bu ñu xamee nag tey génn ndoor kon nag lënt na ko lañ tuddee xuntaa muskil moo tax bañ laajee yonantu bi xuntaa muskil moom fuñ ko soxla mu ne mun xaysu yëbboolu fa muy sawee rek fekk tamit dañ ko yéegal ci kaw ab terrasse wala étage mu tuur ndox ñu seet day colal wala ndax da koy xëpp. bu ko xëppee ñu ne jigéen la bu ko colalee ñu ne góor la ñu xool ñaar yëpp danay xëpp danay colal ah kon kat lënt na kon nag kookan nuñ koy doonoo ak nuñ koy doonoo la dinaa la ko wax yooyu yëpp ci miraas mi ay duruus la yu nekk ci suñ kanam ah, xam naa ne suba suñ bopp darsu bi mooy awlu ah, ndax su ma ko tàmbalee tey tamit du jeex te ma ko jëlaat ci beneen darsu tamit day tax mu lënt te ba bëgg naa mu leer su ma ci bàyyi ko ñëw ak yow ci raddu ñëw ak yow tamit ci miraasu sabil yi ah ñëw yow ci xunsaa muskil su ma ca bàyyeekoo nag door laa nag def la pratique bi ci diggante te daaqul mooy lan te maasul mooy lan te baawin mooy lan te waafuq mooy lan commencé nag nga mën a pratiquer nag commencé xam nag ni ñuy miraasee mu leer naññi waaye loolu nag suba ci waxtu wi lay doon incha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.